bismillaahi rahmaani rahiim alhamdulillaahi rabbil aalamiin wasalaatu wasalaamu ala asrafi alanbiyaai walmursalin sayidina wa mawlaana muhammadin ilmakin wa ala alihi wa sahbihi sawi ridwaani wa tamkin bokk yi asalaamualeykum wa wa barakaatuhu ginnaaw bu ñu sante yàlla julli ci yonte bi alayhi salaatu wasalaam ñaanal sëriñ tubaa cheikh mahamadul muntaxa baara ñoo ngi am mbégte di dellusiwaat ak yéen ci bis bi nga xam ne bisu fàttaliku la waaye bis la boo xamante ne bii bis bu màgg la ci diiney lislaam bis bu màggoon la ci yoonu murit mu di dibeer ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru rakigam gàmm bokk yi bis bi ci lañu ñu jàmbaari lislaam ja boroom xam-xam bu mag ba liggéeykat ba kan uutu woon sëriñ tubaa xaadimu rasuul ci juróom-ñaareelu xilaafaam di cheikh sidil muxtaar mbakke génnoon àdduna ñu gën ko miin ci sëriñ cheikh mati lay bokk yi mu doonoon jëmm joo xam ne mu ngi feeñ jamono ci atum 1924 ca Mbàkke Kajoor di doomi Cheikh Mouhamadou Lamine Baara ak soxna Mati ñu duppee ko sëriñ Cheikh Sidil Muxtaar sëriñ Cheikh Awa Balla mi nga xam ne moo nekkoon ñaareelu doomu maam na Ibrahim borom Daarul Moxti waaye mu jànge ci mu jaare ci loxoom ci njàngum alquran waaye ci seen taalibe bu mag ba di sëriñ ñaan Jóob mu nga xam ne kenn la woon ci Cheikh Mahamadou Lamine Baara alxuraanam bi mu àggee it ci wàllu xam-xam fóore ju mag ja nekkoon njaareem di sëriñ Mouhamadou Dem jàngal ko xam-xam Cheikh Sidi Muxtaar doonoon ku bari xam-xam te ittewoo ko doonoon ku bëgg xam-xam lool sooboon ci ak njabootam itam fépp foo xam ne dugaloon na fa doomam muy jàng alxuraan baa xam-xam ka ko doon jàngal sëriñ Sidi Muxtaar daana yittewoo wàllu dundam ak yeneen yi aju ci moom mu nekk koo xamante ne bii ku ñeme woon wéetaay la waaye doon ku ñeme taxawaayu guddi ku amoon ijaaba ku ñeme woon wird doonoon jàmbaar joo xam ne liggéeyal na Serigne Touba ci liggéey lu bari liggéeyal Cheikh Sidi Muxtaar ci liggéey Cheikh ah, Mouhamadou Lamine Baara ci liggéey yu bari toog jotaayub Cheikh Mouhamadou Lamine Baara ginnaaw magam ju baax ja di Serigne Abdoul Aziz ci atum 1990 bi mu toogee di sëriñ Baara it yitteem yépp mooy taxawal sëriñ Baara loolu moo taxoon fii ci pencum guy mbind kër gi mu fi amoon mu def ko kër Cheikh Mouhamadou Lamine Baara tabax ko tey jii moom la ko yàlla faye fa la tëdd waaye wutal it kër ca ndakaaru kër goo xam ne da koo def muy kër Cheikh Mouhamadou Lamine Baara tawfeex gi nga xam ne sëriñ Moustapha magam dafa nekkoon te teel a génn àdduna te bàyyiwul doom mu defaraat kër ga duppeeku kër Cheikh Mouhamadou Lamine Baara kërug boppam gi amoon ci mbàkk kajoor it da koo daal di jagleel Cheikh Mahamadou Lamine Baara kon kii liggéeyal na Cheikh Mahamadou Lamine Baara liggéey bu ràññiku waaye uuf mbooleem doomi magam yi ak doomi rakkam yépp nag woo leen ci boppam taf leen ci boppam lépp lu muy nekk mu nekk ci ak ñoom ba foo ko masaa wër doomi magam yi rek ñoo koy wër foo ko masaa fekk mu doonoon ku ñeme wéetaay ku ñeme ak tumuranke ku dëddu an àdduna ku ñeme ak jaamu yàlla toog jataayu sëriñ tubaab bii ginnaaw sëriñ Touba Cheikh Mouhamadou Lamine Baara yal na yàlla doole ay leeram wuutu ko moom itam bi mu toogee ci jataay bi rek déclaration bi mu njëkk a def mooy innamal mu'minuuna ixwa fa na bayna axawaykum woo jullit yépp ci ak bennoo woo murit yëpp ci ak àndandoo loolu dundal na ko ci fànn yu bari bépp këru diine gu mën a doon loxob si Sidi Moukhtar Ba àggoon na fa jëfam itam àggoon na fa kàddoom yu rafet àggoon na fa waaye mu liggéeyal Serigne Touba it liggéey bu rëy kërug daaru Marnaan gi ñaari étage ya fa nekk Cheikh Sidi Mokhtar moo ko financé ngir defal ko Serigne Touba waaye itam liggéeyal sëriñ Touba ci jumaa yi Touba ci yokk ci ñaari soroor dolli itam ndamul sëriñ Touba ca Ndakaaru muy jumaa yi Masaalikul Jinaan doonoon koo xamante ku yaatal yoon wi la ku safoo woon mbokk yi la ku amoon njariñ la doonoon nit koo xamante ni bii liggéeykatu yàlla la ci biir jaami yàlla yi ponk bi nga xam ne suñ borom teg na ko ab jullit ci kaw bu ko mënee ñi ko mënutoon ñëpp sëñ Sidi Muxtaar wootu leen ca man nga defal leen ko muy di yóbbu nit ñi ñuy aji baytulaayil haram di ci yóbbu mbooloo mu bari moo xamante ne at mu jot da ngeen dégg na yóbbu na lim bu bari màkka waaye du yem ci yóbbu leen màkka daf leen di gunge ba ndakaaru mu ñaanal leen bu ni ñëw mu gàttanduwaat leen dalal leen dem na màkkatal mukarrama umra ji na kon aj na umra na doonoon nit ku bëgg alxuraan doonoon nit ku gëm sëriñ tubaa te daa wéttali ko ay waxam jàmbaar jooju nag moo ñu dëddu ñaar fukki fan ak ñaar ci rakki gàmmu ñu yóbbu ko ca guy mbind pàkkub cheikh mahamadul amin baara ba cheikh mahamadul muntaxaa taxawu ko ñu denc ko fa yal na yàlla yokk ay leeram ki ko wutu di sëriñ moustapha mbàkke di xalifab si Sidi Muxtaar waaye di xalifab Cheikh Mahamadou Lamine Baara yàlla na yàlla may ko fan wu gudd ànd ak wér-gëram defal ko mbooleem ak rakkam yépp noo ngi ziar bu baax généralu kër ga di Serigne Cheikh Ndiaye ak mbooleem ku mu bokkaloon Cheikh Sidi Muxtaar wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.